bés bi tey yàlla dafa dogal nu am ku bokkoon ci ASC bi doomam dafa faatu ñu di ko jàllale di ko jaale ay mbokkam waaye bis bi tey am nañu naqar tuuti waaye def di àddina faw mu am loo xam ne dañ koy sooxaale kon ñun ñoo ngi sant yàlla di sant yonent bi di sant président Macky Sall di ñaan yàlla ñu jàppale ñu ci programme bi xale yi wax dëgg yàlla fukki at ak benn ci ren at ma ñu ko jëkkee tëg amuñu licence 2001 la ñu ko jëkk a man maa dem union régionale Diourbel mbay jaw moo ma jàppale ba ñu tëgg ko at ma del si mu ne ma na ngeen teg lépp ci yoon kon ñoo ngi sant yàlla di sant population bi ak promoteur yi ñu jàppale xale yi ci sport bi. ndeysaan tàngal man tam na lu mu ko sànni Lourde moo ngemboo ngembu Lagos bi tàngal mant moo ngemboo ngembu lu xonq li ndeysaan ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ah. attention simple na nag mooy premier combat bi. moo takk dàkki ci tànk bi moo ñu aa kanam ah ñaari xale lañ yoo xamante ni ah attention Faye Biram door na jàpp door naa gaaw Alboury ah Faye laa ilaaha illallaah Faye Biram Faye Biram daan na ko jël bu ko mu door bopp bi laa ilaaha illallaah di nga delsi di nga per Bamba Serigne Touba laa lay wax. dañ koo tàndu. bëre rek laay def. maxal li nga bëre. lo giñoo gi laa téye. géej gi ak bopp bi. waaw damaa dóor hyper kii. ma sigi su ma rek dama koy dama koy daal bari suñu fokk ma jàpp nga am ni faaxal. sax ma ni la am. ak fii la wéy ko laal bopp bi sama bopp bi. Fallou Ndiaye production ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi nuyu bu baax di baalu Sénégal gi baax di leen baal àq ci biir Tabaski gi ñu di leen nuyu bu baax a baax yéen waa TFM du nuyu ku mel ni Maodo Cissé di nuyu yéen ñëpp di leen xamal ne tey li ma andi Réfane mooy dëkk fii ndax Réfane gi laa dëkk maa ngi dëkk fii dëkk bu naan Ndioudiouf sama papa juddoo fi sama yaay ñoom ñëpp juddoo Ndioudiouf ma dëkk Lambaay loolu moom ma andi Réfane. combat yi nga taxawal pour ñu dellusi ci. waaw combat yi ma taxawal maa taxawal euh, King Kong ak Sokosine bu école de Balla Gaye maa taxawal Thiat ak euh, Laye Bey Youssou Ndour ak yenn espoir yoo xam ne ñu ngi ñu war leen a boole ci journée boobu allah. Habib Ba ngay wax ak moom ah Habib Soufène Thiel yi dox na ca kawam Thiel yi suñu ndijoor daggaloo suñu càmmoñ ñaari xale yaa noonu ña ngay ñu ngaa luwaatoo ah attention Thiel yi na Thiel yi daw na jël noonu mbot ko. laa ilaaha illallah lii lan la nii na ko ndombo wër na ko. laxasoo na ko daan na ko Thiely Thiely daan na ko jëli bu rëy waaw waaw man ne ko maa la entraînement maa la dàq a bëre. lu ko temps. non du ma ko may temps parce que dama liggéey te xam naa ne mbapatkat laa ku dëkkee li xam ne mbënu mbapat la kon du ma fi ne di xeex ak moom moo tax ma tike li nu ma takk lépp ko daan xam naa ma ko jàppee dama koy daan waaw. Rambo moom moo ñu wan kanam ndeysaan arbitre bi sifflé na ñaari xale yaa noonu ah laman doom Lamane attention dëpp na ko sol ña ngay bëree kaw ña ngay bëree moo ngi moo ngi bëri vert li na ko añ na ko attention Rambo daan na Rambo daan na ko da koo añ laali ko daan ko jël bu rëy oh, Lama Ngok Lama Ngok mu ngi noonu tëdd daan na ko jël bu rëy jógal waaye non gaan bi dama ko dàq bëri quoi. xool ana mbay ndew nga may laaj mbay ndew. ndewaan nga may laaj. gaan bi man dama ko dàq bëri waaw dama ko dàq bëri moo tax ma ñëw appliqué ci moom. tey ji yaakaar naa noo gisee bis bi. Ah, ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ah, di kontaan événement bi nga xam ne moom la boo organisé ñuy wax ne boo est une jeunesse très dynamique kon ñu ne Sénégal yëpp war nañoo roy ci ñii vraiment ñuy féliciter au passage Daouda ak John ak ñi ñu àndal am nañu organisation am nañu yar am nañu discipline euh, Djibril Thiaw bi nga xam ne moom lañ toogal vraiment c'est un jeune de la localité disponible et engagé qui veut le développement de la localité kon kooku vraiment xam naa di wax ci turam sax du yomb mais dañuy jéem rek un professeur d'université un directeur de société si vous permettez vraiment nit la koo xam ne dëkk na ci dëkk bi bëgg gox bi nekk ci ginnaawu son excellence le président Macky Sall nekk ci ginnaawu Mor Ngom vraiment ñuy liggéey ngir jëmee communauté rurale Refane ak Sénégal ci kanam. ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di encouragé ñëpp di ñaan képp koo xam ne ñëw nga ci bés bi yàlla la yàlla defal jàmm. ah at na dafa leer toj na nen dafa leer toj na nen moo féete suñu ndijoor ndeysaan Moussa Balla Gaye moo fete suñu càmmoñ ñaari xale yaa ngi liwaatoo ah Moussa Balla Gaye a jeexal bëre bi Moussa Balla Gaye jël na attention Tapha Leer jël na ko Tapha Leer jël na ko ba waaye dara amagul nee am lu xew lan sëq ko ca abi sufle waan abi sufle waan na ak Moussa Balla Gaye Maawo xale yaa ngi bëre attention ñoom ñaar ñaar ba léegi fii ci Réfane boo ah oh! lan noonu loolu nga wéyee la de attention Tapha Leer daan na ko. avant leer daan na ko bu rëy waay ah ma koy yëkkati waay fair play waaw waaw oh. tey jii dafa leer yaakaar naa ni yàgg sa dëkk bële nga fi gànnaaw combat lan nga yëg ak fan nga bëgg a jëm. waaw subi laa xam ne saa yore ginnaaw ma sant yàlla julli sant bi sant sama ñaari waajur bu baax a baax maa ngi sant sama papa sama yaay bu baax ak sama tante. war na Seydina Mouhamed sama papa tabaski bi neexul ci ñun suukar kan lekkul billaay wallaay. léegi lay wax. sama yaay li nii rek la mën a nii rek la mën a dama ko dool da koo waa refen nga ma andi ma xam nga. fan nga fii sama ma yàgg maa ngi sant bu baax a baax waa bool yëpp sant waa refen sant sama papa bu baax sama yaay ak sama tante di leen gërëm di sant sama doom mbaay yëpp sama famille. bi ma sama septième combat.